ترفع الملائكة إلى توبة إلى توبة إلى توبة وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم Sëriñ Tuuba di maanaam ndex ku dem duy ku soobu ne mes bu génnee xam boroomam melooy Bamba na dégloo tereeru jikkoom ndax mu xam boroomam di jox aji laaj di dimbale ay dëkkaaleem du tooñ ku tooñ mu jégg la ngir boroomam di moy ku ko bañ di woo ku ko foñ di neexal safoo ku ko soof ku dul muy di faj xaajook xam lay mboot di seexal di génni ruu di tus ngëre jox boroomam di fekk ku ñëpp xeebay cosaanam mu fal ko ba ñëpp fale ko mook boroomam di fekk ku mel ni man yangul liggéeyul mu seexal dal ko xam-xam mook boroomam ndoxam jiwaay ji ko yónneen la lamba sëriñ tuuba ma neefu la nga neelam yeeg boroomam bu ni raaseeti waa ju mel ni mimbar woyof na ci kaw te di ci biir boroomam sëriñ tuuba bu ni raaseeti jant bu dem ci njollo di leeral yépp gox te génnul boroomam fu ni raase di waajoo xam ne bu ku nekk di di lax ku dul boroomam fu ni raase di bëgg bu jaadu geesoo di rombu dërëm ya di rombu dërëm ya jëm ca mbirum boroomam fu ni raase di bu fab alxuraan ji di def ci taax di taalif ngir boroomam bu ni raaseeti Sëriñ Tuuba bu ni raaseeti du sob alquraan ji def ci taax di taale ngir boroomam bu ni raaseeti ñu gis ëlu badrin di ànd ñoom di diyaale ak boroomam bu ni raaseeti waajoo xam na buy way xarafu mu def rek di ca bëggir bu ni raase di Sëriñ Tuuba waajoo xam ne fu teew kopp mu faj ku dee mu yëgal boroomam Sëriñ Tuuba bu bañ bi bay raasi moroomam di gis ju ni mel di ji jamonoy ca gaaya ne woon ca baawoon di xarnu yi nu jëmit du ci ñëwaat moroomam sëriñ tuuba weddi ba tax nga ne maay moroomam na def li mu def te wax li mu wax boroomam ba nga dox ci réewi gabam wër kongo ci ay noonam ba dellu ci ay moroomam te sàkk ku mel ni siibra faati maam Ceerno ndaamal daaru te sàkku ku mel ni Seex Ibra faati ayu sëriñ Seex Awa Balla Mbàkke wax ma dundumbe xabaan ak Seex Ibra Faal lamp baraamam te sàkku ku mel ni Abdurahmaan Lo juddu ci Mbàkke moo la xamal baraamam te sàkku ku mel ni Seex Anta borom Daaru Salaam te sàkk ku mel ni maam seexante borom daaru salaam dem ba siyaar yónneen moo ki doomam te seexal kam li seexi bamba seexal te sellal seeni xol bu ñu xam boromam te sellal seeni xol waaye ñu xam